waxtaanee dañu ne ñu ngi jàppale le candidat Idrissa Seck nga xam ni mooy président wu coalition Idy 2019 lii ñu tànn nag dañ ko saytu saytuwaat ko xalaat ko xalaataat ko bi ñu amee ay waxtaan yu bare ak candidat bi Idrissa Seck mu ñëw fi ñu waxtaan lu bare yoon donc tànn bii ñu tànn lu ñu xalaat la noonu la mënoon a demee ci intérêt Sénégal ndax Sénégal moo ñu ñor moo tax ñu jóg jàppale ànd ak askan wi liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ndax kat dañu ne dañu war a changer bu baax a baax mbir yi ma bëgg wax nag ci aussi li tax ñu sawar ci jàppale candidat Idrissa Seck mooy solo gi mu wane ni jox na ko jigéen ci biir askan wi jigéen ci njariñam ci askan wi jigéen ci dugal loxoom ci askan wi ñu koy wax leadership féminin